maaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi cottu ndey lii rek influenceurs yëpp jënd na leen ay Maymuna Fall ay Chabi ay Madeleine ay Kiné Ndiaye ñoom ñëpp a ngi nii ma affiché ay ñoom Maysa ñoom ñëpp a ngi nii toj leen seen lëfal ndey ci commentaire yi ba duñ ko defati gars yi lii lu ndaw ngeen ko teg mais du lu ndaw buñ fa amee doole dinañ sàcc kàddante yi sàcc parrainage yi jaxase élection yi ñit bëggoon a bokk ngeen bëggoon ñu gañe yëpp duñu gañe wala seen nombre de parrainage du met billaahi wallaahi wa taalaay gis nga li ma leen tegal di leen ko wax nii bu ngeen ko xamoon ñii li ñu jaayee seen ngor du lu tuuti dafa am ñoo xamante nii sax fay nañ leen lu ëpp cent mille francs pour ñuy def lii gis nga dañuy dem ci kër yi di yónnee maire yi naan leen ah dañ leen di defaral nangam entreprise bi la soog di liggéey dafa bëgg permis pièces yi dañ koy maye kat ndeyu seen kàddante yi def ci ay parrainage ku ngeen gis mu def logo yi saaga leen tuunu ndeyam kat leen data ndeyam ngeen desa bone il faut ngeen may jàppale ci combat bi parce que lii du lu ndaw ñu kat seen data ndey leen